ngeen jëf mbokk yi générique ba départ na jàngat làmb commencé na wasaare làmb tàmbali na ñuy nuyu képp koo xamante ne yaa ngi ci réew mi ak bitim réew di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen siyaar euh, tey nag jàngat làmb bi du ma ci wéet ndax dama ci ànd ak kenn koo xamante ne kenn du ko présenté ci làmb muy suñu kilifa di suñu papa du suñu lépp euh, waxoon naa leen ko mbokk yi maa leen ko digoon ne leen Père Birahim dina ñëw fii. ñu ànd ak moom def li nga xamante ne mooy plateau waxtaan ci làmb waxtaan ci lépp loo xamante ni njariñu làmb la ndax macha allah Père Birahim ku ko wax wax ko ci xam-xam bu sell per Birahim ku ko xam xam ko ci wax ju rafet Père Birahim ku ko xam xam ko ci taalibe soññ ci xale yi yoo xamante ni jàng la te xale bu ci nekk war na cee mën a euh, jël muy leçon tey nag moom laa fas yéene ànd ak jàngat làmb yu ñu waxtaan ci Père Birahim maa ngi lay nuyu. waa jërëjëf.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 Adama Adama. Mm. ak ak kii keneen sama doom jigéen ji ak topi mm-hmm. mooy maa ngi koy nuyu di ko ziar ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm. Mm. di ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo ñoom di ñu seetaan di ñu déglu. Mm. Eh, suñu di ñaan ci yàlla yàlla na yàlla def kàddu gi ñuy wax ñu fekk leen ci jàmm. yàlla defal leen sutura ak di ko ñaanal ci jàmm. ci réew mi ak réew mi àdduna andi di di ñaan jàngoro yi nga xam ne moo nekk ci réew mi lëmbe àddina bi yëpp. Mm-hmm. yàlla nañu ko yàlla teggin. yàlla nañu yàlla tegg yàlla nañu toog ba di ko nettali. ñu fekk yàlla boole ci ñu fekk ñu ñi koy nettali bi barakatu rasulaay te yàlla tegguñu bépp mbas bi barakatu rasulaay di ñaanal waa sud yëpp nag tey nag fas yéene ñëw waxtaan ak yéen nag tey nag maa ngi ñëw déglu taat nga xool ba xam waxtaan bi daal dalu naa la kàddu gannaaw ma nuyoo ba daal. <laughs> jërëjëf wax ji am na solo loolu mbokk yi kon ni leen koy defalee ci bilan wu écrit yi tey noonu la ñuy fas yéene waatee tey waxtaanee ko barki démb gis ngeen écrit bi ñu leen indiloon muy écrit euh, Langsar. ci palmarès bu rafet boobu nga xam ni def nañ ko ginnaaw cinq cinq mois yoo xamante ni euh, feebar bi daf cee am euh, saison bi bariwul parce que saison bi ren bokk na ci saison yu gën a gàtt ci saison wu làmb mais teewul am na ci écrit yoo xamante ne bëri nañ def nañ résultat bu am solo am na écrit yoo xamante ne wax dëgg résultat bi séntu woon nañ plus ko loolu tey nag ñuy waxtaanee écrit bi nga xamante ne mooy Tay Shinger Tay Shinger ñu ngi def Euh, huit combats lañu def am ci euh, quatre victoires ak quatre défaites. Hmm. écurie boo xamante ni dégg nañ euh, titre roi des arènes. Hmm. ki ko fa indi muy leader ba di Eumeu Sène. Hmm. Eumeu seen nag moom la ñuy bàkkee sëtu Samba Xoyaan bi naan ko Demba Ngom ak Demba Ngor Demba Farima jigéen xale boo xamante ni ba muy bëreeg Modou Lo keroog Modou Lo moo jël roi des arènes bi ci moom mu ànd fa ak ay xale tàggat fa ay xale ñu ànd fa nekk fa di liggéey. liggéey bu am solo mais tey bu ñu demee ba gis écurie ba am 4 8 combats euh, am 4 victoire 4 défaites te ñi ñuy woowee ponkal bi ci écurie ba bëriwuñu kon daanaka mën naa ne combat yooyu yëpp ay xale ñoo ko bëre Père Birahim palmarès bu mel noonu ci écurie baax na ci saison bi fi mu toll wala wala wala wala jàll na jàll na gàll mu góose waaw jërëjëf maa ngi rafetlu euh, question bi nga ma posé parce que hmm. bul faale Euh, Taï Singa Taï Singa. Hmm. Euh, Taï Singa. Hmm. Euh, mooy mooy ñoom ama seen. Hmm. waaw bu ñu defee quatre combats. huit combats huit combats. quatre victoires quatre défaites. baax na am nañu moyen. waaw bu fekkoon dañoo def dañoo am cinq défaites. ak quatre trois victoires. wala ñu def cinq six défaites. def jaar kon nga ne nañu seetwaat waaye moyen la am. maanaam bu doon téeméer am na juróom fukk. perte juróom fukk. kon ba tey góorgóorlu des na ci ñoom. te itam euh, ka fa nekk dafa am ndam lu rëy loo xam ne lii ndam li mu fa indi hmm. kooku wecc na fukki ndam hmm. waaye mooy bombardier ama euh, hmm. seen mu daan bombardier ah kooku tamit keroog ñu bari ba ñuy bëri ci làmb ji ñu bari xalaatuñu ko woon keroog xalaatooñ ne kuy dem rek booy ama seen mi tey jii bu wattuwul mën na fee jóg ñëbbi ñëbbi place ba. Hmm. parce que waa ji da ko guy ron ko. ba pare ñëpp yaakaar ne tey jii te fu ko waa ji jàpp rek bëre bi jeex tàkk. Hmm. tey mu dem yàlla may ko ca ndam lu rëy ndam loolu nag. ba kooku rek bu fekkoon moo ko am ñu daal ñeneen sax am na ndam lu rëy parce que hmm. dafa am ndam lu kenn foogul woon. dëgg la loolu la ko am ci écrit wax dëgg yàlla santal yàlla xam ne am nga euh, ndam lu rëy a rëy kon bu ñu amee quatre victoire quatre défaite kooku c'est passable kooku moom mënees na ko mënees na koo dégg. Euh, foofu fi may jeexale ci question boobu mooy ñu gën a góorgóorlu takkaat seen ngémb gën a liggéeyaat. Mm-hmm. gën a liggéeyaat parce que nit boo xasee li ma wax ci jàng rek gis nga jàng boo xasee jàng ba yeewu. Mm-hmm. foo yem yaa fa yemale sa bopp. waaye boo takkee sa ngémb gën a liggéey rek da nga dem ba sa xam-xam gën a bari. Mm-hmm. te loolu rek lan. nañu gën a góorgóorlu fokk seen làmb gën a góorgóorlu rek. gën a takkaat ngemb gën a liggéey. xëy nag événement bii fi am temps yi passé ba làmb ji xaw a taxaw. xawul taxaw sax dafa taxaw. xëy na tam moo gën mënoon na bu ñu continuer gën a bëri victoire. xëy na dinañ ci am defet waaye mënoon nañoo gën a bari victoire mais baax na daal. man daal baax laa leen di wax daal di leen félicité di leen ñaax ñu gën a takkaat seen ngemb gën a góor góorgóorlu. gën a jàppante gën a muñalante gën a góorgóorlu. waaw jërëjëf parce que boo xoolee ku ci mel ni Eumeu seen ñu ngi wax combat am taxaw na. Euh, diggante digganteem bombar Bombardier ngeer bu zap fa la nekk. moom it ah, combat am taxawoon na. Euh, mu mel ni kon am na ci ponkal yoo xamante ne jàppoon nañ ni saison bi ren dinañ ci bëre. Mm-hmm. tey loolu yëpp feebar bi moo ko waral mooy gàllankoor bi nga xamante ni feebar bi am na ko. Mm-hmm. kon tey fi mu toll ni leçon la boo xamante ni Père Birahim jox na ko képp koo xamante ni da nekk écrit taay mm-hmm. moyen baax na. baax nag du du ni. Euh, da ngeen a jàpp ne rek nga bëri huit combats am ci euh, quatre défaites quatre victoires rek baax na mais baax na ci saison bi fi mu toll. parce ku ne xam na ni saison bi dafa gàtt te lu ci bëree bëree bari ci écrit yi bëriwuñu yenn nombre komba yi. Mm-hmm. père dafa am lu ma jaaxal mooy ci saison bi diiran bi mu gàtt yëpp. Mm-hmm. écrit boo tudd. nombre de défaites yi mooy ëpp victoire yi. Mm-hmm. am na écrit bu ma fi tudd barki démb. ñu bëri am quinze quinze défaites. c'est euh, six victoires. Euh, ak benn match nul écurie bu mu fi tudd rek noonu lay demee. pour écurie yan jafe-jafe la ñu am. waaw yooyu jafe-jafe laaj nga ma question bu ma am sama xalaat mooy xale yi dañoo yàkkamtee doon mbër te ñu mbër. Mhm. ñu ci bari boo daanee benn mbapat ñaari mbappat wala boobu ma soo bëree mbapat am benn combat koñ bi organisé la. Mhm. ñu jàppal la jàppale la nga am benn combat dem fa kastalu daan defe ne jeexal nga téere yi fekk jeexaloo dara. Mhm. da ngaa mënut a bëri. ñenn ñi dañoo gëm gàllaaj téere takkook takku sa dënn takk say tànk takk ba fees del yaakaar ne loolee tax daal loolu taxula daan mm-hmm. muy benn. ñaareel bi dañuy dañuy day dañuy naan bëxër ñett au lieu ñu am ngërëmul waajur. Hmm. yëkkati si ay million wala ay téeméeri junni di ko jox benn benn ci mu di leen nax di leen nax moo gën a jox ko seen day wala jox ko seen baay mu ñaanal leen ñu door a dem. Hmm. gone day sàkku ngërëmul waajuram. ba pare nangoo entraîné. Hmm. nangoo entraîné ba woo koŋŋ ba mel ni bant bi ma jàkkaarlool muy benn. ñaareel ba encore tamit nga yokk la xam-xam. ki la Euh, sëñ bi mooy ki nga xam ne kii dalaa dàq bëri ëpp la nga nekk entraînement xool la nga bëri mu ne lii nga def juum la bul defati nii bu la waa ji defee nii nii ngay def lii bul ko mayee kooku moo la mën a yokk xam-xam hmm. mais yow yàq ngaa doon bër dem moo tax ñu ci bëri buñ ne bëri buñ demee duñ sori hmm. parce que dañoo mënta bëri yenn yu bëri xool galaaj daanu leen hmm. ñenn ñi lenn ragale leen daan ñi ci ëpp ci mbër ay ragal lañu mënuñoo bëri ñenn ñi mënuñoo bëri ñenn dañoo ragal dégg nga ñenn ñi ñàkk condition ñàkk entraînement gëm galaaj ba du ñu nangoo entraîné loolu moo leen daan loolu nag écrit bu ko dem tamit te defaru la da daanu. man léeg-léeg mbër dem ma xool xam ne kii tey ragal la ko daan. kii tey ma xam ne daa munul. parce que mu ngi doon sooxaale lu bari ma gis ko mu di ko def. xam naa ne bu ko rectifier dañ ko ci daan. man toog naa si ba tay bër daan ñu di ko tagg man duma ko wax parce que sama yoon newu ci parce que laaju ma mais su ma laajoon dinaa ko ne booy rectifier nangam. moytul nangam ak nangam liggéey ko parce que nii ngay liggéey boo erreur bi lii la bu waa ji defee lii boo deful lii dina nga ma sa am lii hmm. gis naa fi ñoo bari ñoo xam ne seen jël bertu ma wallahi taala hmm. waaw dañoo tëboon di neex la rek di force seen xéwal di dem rek hmm. waaye loolu booy daf ngay dem ba jamono yoo xam ne da ngay xam ne kii man su ma góorgóorlu yokk sama xam-xam maa ngi tardeel sama bopp. li ci bari loolu la téye. mooy mooy mooy kon li liñ naan mbër day toll ci ay biddéewam mm. toll ci ay guddeem des fois nga tollu ci say mm. biddéew macha allah boo bëree combat ba mu neex mm. ngay bëre di daan ngay bëre di daan bëre di daan ñu naan sampion baa ngi noonu mbër maa ngi noonu nga dem ba ci kaw ñuy boole la say nattangoo yoo xamante ni ñii ay borom doole lañ ñii mën nañ li ñu doon ñii xam nañ li ñu doon ba tey boo demee foofu da am ay gàllankoor yu baree baree bare ci làmb mm-hmm. kon loolu ba jot na xale bu ci nekk nga bàyyi ci xel bu baax a baax a baax te xam ni Père Birahim euh, nekk na koo xamante ne da leen di jàngal ci làmb éducation bu baax lay def ci mbër yi da dégg waxam saa su ne mu lay xamal que ni mbër mi balaa dara da ngay am liggéey nanga am métier na nga fonk say ñaari waajur mhm. bul wor mhm. na nga respecté waxtu julli juróomi mhm. na nga bul tux bul naan bul nekk ci ci soxna yi comme ni nga koy waxee discours boobu doon na discours boo xamante ni ñëpp xam nañ ko ci moom kon yéen xale yi nga xamante ni yéen a bëgg a doon ay champion ëllëg ci làmb bàyyi leen ci xel ci wax jooju père dafa am leneen lu ma jaaxal ci écurie yi mooy dangay jékki-jékki gis écurie yi xale yoo xamante ni ñu nga fa ñu jékki-jékki dem keroog moom laa doon waxtaanee fii dem ci ay promoteur gisanteeg moom jox ko caution ba mu jaral leen ñu jënd combat pour bëre dem ànd ceeg seen i mbokk ñu jox leen soit ñu jox leen ko ay bologu billet. wala ñu joxe fa seen xaalis ñu ànd ak seen i mbokk. dem ci làmb ja daj ci coono yu nekk buñ ñëwee tële dal leen ñu bëre daanu. te buñ tourné ne damaa jënd combat bi damaa ji loolu mosulaa dal say kii. non non dina may dal. Hmm. dina dal waaye man ku ma ci tere. Euh, buñ la daanee. Hmm. ñoo nga may dégg xëy na àggagoo maa ngi koy nuyu. Hmm. ñoom xaadim. ñoom euh, Mori. xale yi nekk ci équipe bi yëpp ak ñoom même kii mu gàll la bëree bu fa la nekk ndongolo ci ñun la léegi. am na ñu ay booy yu bees yu fa ne ak ñoom mm. Desiga ñun ñëpp tuwaat mm. kàlla booy yaa ngi mm. xam nga lu ñu njëkk woon na ma lii. père naa de la ma tere woon lañ ma daane de ne ko waaw du xam nga ma sa suub la. lu ma ne la moytul nangam ci bëreeg moytul. la wallaay moo xam nga loolu lan la. boo ñëwee ci écrit yàkkamte loo doonul taalibeem loo doonul sëriñam booy dañu waxante dëgg loolu doonul taalibeem doo doonul sëriñam mosoo téye àll woon ne alif ba ta sa mosoo koo jàng bëgg hmm. bi daara ne da ngay jàngale da ngay naxaate yaa ngi dégg la ma hmm. xale boo ci yàkkamti dem buti promoteur ñu ne kii kat gudd na rëy rek nañ dem buti benn promoteur daa nga mu neexal ko tëggal ko combat naa nga te jàngoo la nga war a jàng hmm. boo demee dangay ngay daanu su ko defee xam nga looy mujjee jàppale wuñ ma ah day jàppale wuñ ma koñ bi dañ ma jàppale waaye maire ba ne ca koñ ba bu la jàppale wutalee tiset waa koñ ba politicien ba bëgg a wut tur jaar ci yow wutale kaar hmm. wutale lépp te yóbbu woo bagage soo daan hmm. bagage bi nag nekkul takku bu bari ba hmm. camion butéel maanaam est-ce que R4 yu ndaw yee kii nu mu tëdd L200 yu ndaw nga duy koy butéel moom fees tel di sangu ba huit heures du matin ba huit heures ci guddi taxu la daan dama ne nit da ngay mën a bëre mën a bëre don la ci nit fu ñu nga xam ne nga war a def. Hmm. nga nekk ci benn kër yi am ku la wutal combat yàkkamtee bëre moom moo tax ma ne yàkkamtee tukki yàkkamtee bagage ko gën. Hmm. bala ngay yàkkamti naan naa am combat naa am tàkkusaan naa am tàkkusaan hmm. fexeel ba teey rek ba am lu wóor dëgg la leneen toujours ne ku ne nga dem dugg fa naan ko paa wutal ma combat wala ay nit di la dajeen waaye lu tax ngay entraîné te amoo combat yow écrit bi nga nekk amul njëriñ ngësëm bu mu la yóbbu. Mm. ngësëm dina indi doom bu ñor dina indi doom bu ñorul. Mm. doom bu ñor ba nuñ koy def. sànni sànni kenn ko lekk oh, waaye doom ba ñor moom. ah dañ ko lekk xam ne kii ñor jëfandikoo ba mu neex. am ngoog loolu mooy doon. Mm. mbër ak mbër da nga koy koy teey di raam ndànk-ndànk. daara commencé ci mbapat bi mbapat di am. lañ daan wax mbapat. tëkk ci mbapat ñu ne diw ah diw fa ñëw dégg daan na juróomi nit. daan na fukki nit. juróom-benn nit la tegale démb diwa toj mbàppat bi nga dégg ko fa sol sa daal dem fekk ko foofu. ñëw ne kii tey daa fexe daal ko loolu nga daan dem ba ñor ci ba ñor ci ba ñor xomm ci mbàppat yi door nag dugg arène nag di bëri combat yu ndaw. mais léegi benn combat ngay dem lijjanti ko ñu dox la ko ngay am fa kas solo daan ñu ne jeexal na téere yi. am nañ champion fekk da ngaa gudd réer waaye doo champion. Hmm. waaw mais père fi ah. mu toll nii ci làmb yan xale nga fi gis. nii moom tànk bi ñu nekk buñ ci teggiwut mën na doon champion fa Balla gay teg tànkam moo Lo teg fa tànkam Eumeu seen teg fa tànkam Bombardier teg fa tànk ak yeneen champion di teg fa seen tànk ku mel ni Boy Niang ak ñeneen ñan nga jàpp ni ci xale yi fi mu toll nii niñ jàppee ci làmb buñ ci tegul seen tànk mën nañoo doon champion waaw gis naa ci gone yoo xam ne nii li may jëkk a wax hmm. su leen yàlla mayee ñu bañ a bokk ci gone yi di war hmm. parce que war moo hmm. tabaxoon étage su jamaa bu tëpp seen étage bi te ngay war daal nañ ci yàlla ndeysaan rek lay mujjee. koorkat. dama ne ay mbiram bu départ état su jamaa mu tabax ko ndeysaan doo nga lay mujjee. ay ndeysaan diwoo mel nii ay ndeysaan diw dem te loolu na yàlla ci na ko wax inna laa laa yahdi kayda xaa'iniin. bi taal dafa ñu man yàlla du ma jóor pexem warkat. te yàlla lu mu wax téere la lu mu wax dara du ci dégg. dëgg la dégg nga li wax muy benn dinaa la limal gis nga mel ni rëgg bu ko yàlla mooy kon dina tëj tëj làmb ji. bu ko yàlla musalee ci ndox. Hmm. da ko dégg ci làmb ji am na benn xale bu ñuy wax ngel jon ngel seetaan naa ko waaw kooku tamit bu góorgóorloo. ko dégg ci làmb. Serigne Ndiaye numéro de boobu ne Faas. bu Faas su góorgóorloo dégg ndigal wut ku ko yokk xam-xam. Hmm. dina ko da nga ko dégg. même euh, xale boobu ñuy wax Gris 2. Gris hmm. am na masse bi am na même ndoxtu baa des. Hmm. ndoxtu bi bis bu ñoree ba ñor. ah làmb ji am nañu gat parce que li mbër soxla moo ne ci moom. waaye loolu nag day ànd ak xam-xam. day ànd ak fit borom doole ju ànd ak fit ak xam-xam. Hmm. booy kenn kenn mënta bëri moom. Hmm. amoon nañu benn champion bu mag boo xam ne bii genre bi noonu la meloon. Hmm. mu ngi ci kooku sunu génération la man mii bëri na maa moom ñeenti yoon. mu ngi ci laa moom nekkoon na fi waaye kooku na genre boobu la moom def na lu ci ne ci làmp genre boobu la am gaayu kabri boobu la amoon. est que du père manga. waaw moom mu doon daal man daal <laughs> xam naa ne man du ma ñaan du ma waaye du tex ma ay ay defaral. fu la mos sa fekk bëre bu jeex na. ndeysaan kooku nag foofu moom am jikko yooyu. Mm. loolu lu baax la. Mm. lu baax la. Mm. dégg li ma la. Eh, ak kooku tam mu ngi ci yoon bi de. Serigne Ndiaye numéro 2 boobu mu ngi ci yoon. ak kooku eh, kii am na beneen booy bu ñuy wax eh, Ibou Senghor numéro 2. Ibou na tam beneen booy bu nekk fële gis ah, ah, franc. franc franc booy franc boobu nekk. parcelle mbooloo kii parcelle mbooloo. kooku bu amee gétt. amee gétt laa wax moom it da ko dégg ci làmb maa la wax lii. ba ma ne la lii ma la waxee bindal sa bu nu yàlla may gudd fana ba làmb delluwaat ma ba mu nekkoon. ñii te ñu te ñu làmboo jikko yii ma la wax nag. mais suñu làmboo jikko yii ma lay wax. ah bu ñu réussir bu bett ma. maa la wax lii gàtt tànk gàtt làmmiñ nangoo entraîné. am ñaanu waajur. ñaanu waajur day aar doomu aadama. muy man muy yow mii bëriwul ak ñii caméraman bii jàkkaarloo man ak ñeneen ñii ñëpp. Mm-hmm. dégg nga ku ci am ñaanu waajur rek raw nga ci sa waaye ku ci amul ñaanu waajur laa ngay lor sa bopp. Mhm. loo am ndeysaan rek lay mujjee. Mhm. booy yooyu dama leen gis nga ñu am na ñeneen ñu ma ci xamul léegi dama leen gis ci làmbu séeréer. Euh, waaw tournoi làmbu séeréer yi. Mhm. mais ñooñu tamit bu ñu góor góorgóorloo ak gabar bi ne yaa ak ndoxtu bi ñaam parce que ñooñu li dañoo jaar ci base bi maanaam ABCD bi dañ cee jaar. mooy tournoi dem ju mbër bindu fekk cinquante mbër bindu. ngay bëri di daan di daan di daan dema finaal dem wala ngay daan di daan ba quart final ñu daal la nga ñëw déggaat beneen dëkk dem dem demaan beneen dëkk dem topp wër dëkk yi di wër di wër ba dellu siwaat soo ci góorgóorloo ba ñor ci ba dugg ci arène bi jàng tuuti xeex jàng xeex xeex bu bari bi sax bariwuti waaye jàngal moytu rek mën a xeex xeex baax na waaye nga mën a moytu koo jàpp bi jeex xale yooyu ma la gis noonu mm. bindal te jëna liste denc mm. la ma waxoon ci Balla Gaye wax ko ci euh, Modou Lo. Hmm. wax ko ci Eumeu Sène. Hmm. wax ko ci Lac de hmm. euh, wax naa Elton. waaw ak Elton. ñooñu dama leen di wax ne ba Yékini dina neexlee ci làmb ji. di neexlee ci làmb ji laa ne Yékini mii euh, ñi fi tolloon doole da leen ëpp bëri. booba ñi mu tolloon doole ay maasam. da leen ëpp doole. mais ñi fi am bëri bu ko daan nag amaguñu doole ji. muy cinq yi ma la limal. la waaye bis bu ñu ko fekkee ci làmb nag. Mhm. xaw ma nag ñu bàyyi mu ñu bàyyi balaa ñëw. Mhm. lim naa Balla Gaye ci la bokk. lim naa ko may leen eh, bu ñu ko bu leen fekkee ci làmb. Mhm. fekk moom bàyyiwul. problème dina ko dal parce que ñoo ñoo am bëri bu ko daal mais amaguñu doole ji. waaye bis bu ñu amee doole ji bu ñu ko fekkee ci làmb problème dana am problème. moo tax it premier. ah yow tam booy man làmb du waxantu booy. premier ma sama bopp di damay wax li may wax. Hmm. ñiy jàkkaarloog man champion yi jaar ci làmb xam làmb xam ne li may wax téeréel dallu ci de. dëgg la père moo tax ba mu amee Ngagne maa ngi koy nuyu de passage Ngagne xale bu baax. ne hmm. ma grand bi waxoon koo de ma ne ko waaw parce am na ñu bi am nañu bëri bi am nañu xam-xam bi. Hmm. mais amaguñu doole dafa nga ne tey yow mën ngaa mën a bëri ba tëdd ci naaj wi hmm. dajeeg borom doole joo xam ne boo dalee ci kaw bu ne nii nja bés la nga tëdd wala mu ñett bu nga duggee mu ñett la ngaa dusu foo jëm waay kenn xamul. ah moom. yow tam ah. doole joxul jàmm. déedéet. doole ju doole ju bëri. Hmm. bu àndee fit booy. xii hmm. booy ba abal ko dëkk bi. <laughs> am na ci ñoo xam ne bu doon dóor nangu rek am le ma port akaati amul ma amul. Ah, ah. dóor nangu. waaw buntu banque bu ñu taxaw de kenn du jël si xaalis. moo yow. booy yow tam ah da xam ni ku ko dóor mu xoole fi mu. kat lay lay la xam ne doole dëgg la. bële doole ku fit. ba bakkan bi wax na ko bëri doolee ku fit. Hmm. waaw. mais per père tey li ma bëggoon ñu ñu ñu ñu yàggaat ci tuuti mooy. tey yor nga écrit. waaw yor fa ay xale. Euh, di leen forme di euh, bëgg leen a def champion. Hmm. tey euh, man mi nekk ci beneen écrit doon mbër mu mag. Hmm. soxla conseil père Birahim Ndiaye. est-ce que su ma ñëwoon fëgg sa kër. dix huit heures wala vingt wala vingt une heure ñëw ne na père kat dama laa soxla woon maa bëggoon ñu toog waxtaan. maa bëggoon def lii ci làmb ak lii ci làmb ak lii ci làmb est que pare nga pour accompagner kooku. waaw loolu loolu kay yow da ngay sama laaj man booy yu mbër yu bari fii maa leen defar gannaaw yàlla. Mhm. booy yu mbër yu bari xam nga mbër lenn suñu jikko la. sàmm bu laajee dañ dul euh, fàttaliku démb. démb dañ dul gestu. Mhm. mais am nañ ci bari ñoo xam ne ànduñu woon bokk ñoo mën écrit. Mhm. man maa leen rek ci fii gis seen bëri ñu def heure may la diw bàyyil nangam ak nangam yow soo bàyyee nangam naa doon bëri. mën naa la ci limal lu bari xam nga dama nekk ci rajo. damaa nekk ci. Euh, waaw internet bi. Hmm. am na ci yoo xam ne yi doo mën tudd waaye ñoom ci boppam ñoo war toog di ko wax. Hmm. am nañ ci bëri ñoo xam ne toog nañu ne ma gannaaw yàlla dégg nga li ma la. Hmm. tey bu ma doonee mbër yow la. ñu bari laa wax nañ ci télé wax na ba ma doon yàlla parce que damay dajoo gis sëb rek ma xam ne benn ndox bii moo la téye. père loolu doguma la. Euh, mais am na ci loo xamante ni ci làmb laa yëngu. lu ci bari information yu bari. ci làmb. Mm-hmm. dama koy xam. am na ci mbër yoo xamante ni certes nangu woo tudd seen tur. mais bëgg naa ci cité kenn ku ci nekk. Mm-hmm. Euh, am na foo jaar ak moom. xëy na mu wax ko ci ci presse bi ak mu ñàkk koo wax. Mm-hmm. am na conseil boo xamante ni donte euh, benn benn conseil la. jox nga man li ma tuddee tabe. du du yëkkati xaalis bu bari jox nit mais nit ku am idée bu rafet boo xamante ne mun na ko bokk ak yow mu woo la nga ñëw mu ne la jaaral fii ak jaaral fii jaaral fii mm. loolu rek ci tabe la bokk tey euh, dinaa cité ñetti mbër mm. wala ñeenti mbër ñoo xamante ne xam naa ni mm. euh, am na foo jaar ak ñoom am na loo wax ak ñoom ci làmb dama koy commencé ci Modou Lo parce ñu bari dañ naan Père Birahim Modou Lo mbërëm la te alors que euh, damay gis analyse yu bari yoo xamante ne boo koy def ci làmb ci day méngoog loolu kon da ngay xam ne loolu du du far waaye xam-xam la boo xamante ne yàlla suñu borom dogalal na la ko defal na la ko ñu la koy nangul di la ci jaajëfal bu baax a baax a baax sa diggante ak Modou Lo ndax Modou mu toll nii am na étape boo xamante ne yaa ci tegoon ci tànk ba dégg nañ ci bi nga jàppee loxoom ànd ak moom dem ci papaam ba ne ko kii bu amee sa ngërëm lépp lu mu bëgg ci laa ko mën na ko am léegi loolu laa bëggoon nga expliquer ma ko waaw foofu li ma fi ñëw mm-hmm. euh, sëñ Abdou Khadre mm-hmm. mooy Modou Lo ma ko mm-hmm. mosuma ko ne lii ngay def boo defee ni defal nii. dëgg la mosuma ko jàngal parce que mbooloo laay waxee. Mhm. te bëgguma moom mu toog jàkkaarloog teel kii bi seetaan ko. Mhm. ne père Birahim dañu wax amul. Mhm. man lu may wax rek boo ko xoolee day weex taal. dëgg la waaw ci fen du ma ci yokk du ci fen. parce que damay xool sama diggante ak sama borom. ci li may wax. doo seen site ba de. Wassare la mu dëgg. day déet kenn du ko dindi. ba tey dama li may wax it. tàllal naa ñëpp lépp lu ma wax fii. képp koy ci duggal ci bi weddi ne nangam li amul. amul Modou Lo jàngal lu ma ko bëree. dëgg la Modou Lo dafa nekk xale. Hmm. ma tëgg mbapat foofu sama booru kër mu di fa bëree si moom ak ñoom Balla gay hmm. ñoom Les Deux. Hmm. ñoom Sakka Yor bii feebar nii. dégg li ma la. ak ñoom sa kii euh, euh, Mansour Diop numéro 2. bari nañu daal xale yu Pikine yëg yëpp ñu tëgg mbapat bu neex mu nekk booy bu ndaw. ñëw nag duyee nag mën a bëri lool nag ma gis si moom ndoxtu boo xam ne bi damaa waaru sax. xale boo xam ne damaa waar dama ne kii bëri bi ci moom ci sama yëkkati benn booy laa ko ci gisoon muy ku ñëw Ahmed Anaconda. kooku bu toppoon bëri te topp nii comme ni ko Modou Lo fonke woon nii mm. des na ko parce man toog naa man ak moom Modou ñu daje stade amitié bi ma ne ko Modou Lo xale bi li ma gisoon ci yow laa gis ci kii mm. waaye amee dara da nga koy fonk boo ko fonkul day rot dëgg la boo rotee keneen for ko te dootoo mm. jot mukk waaw li wolof na alalu ko sàggan ko far la bien ça Modou li mu am ne yàlla ko may du luñ ko jàngal dafa nekk xale bëri ñor ci moom mu nekk di ko foye mu di ko fooyee loolu la hmm. moom noonu la mel Balla Gaye mii noonu la mel. Hmm. ñoom ñaar rek bi ma leen gisee sama mbappat ñu ñuy daane benn jour dama mbappat bi dafa ma arrêté ndënd yëpp jël micro bi dégg nga mu jox ma micro. may leen booy man bu ma nuyoo pare leen maa ngi leen di gis naa fi ñaari ko ne yoo xam ne ci làmb ci mbappat mii. Hmm. bu ñu yàlla may gudd fa des na dégg ci làmb. boobu amul amul licence dóor amul licence simple duggagul sax làmb. yaa ngi dégg la Balla Gaye moo ci commencé di bëre combat yu ndaw. dégg li ma ma leen ñaari xale ñu ne ko ma Balla Gaye mii ak Modou Lo bi des na li ma sa dégg ci làmb tournoi boobu Modou keroog ba ma ko yóbboo keroog bi ñu dee ba final ba ñu dem ba keroog jël ñetti coupe yi mm. ñetti la ma jël ñaar yi bi mm. Modou ma taaj sama oto dem ba ci bàyyam toog góoraloo yàlla na ko yàlla yaram xare ko àjjana daa yi la gaañ bi ma ne góora xamante woon depuis Grand Dakar ñoo dëkkoon ma ne ko góora sa doom ji boo amee mm. ba sept heures ma ne ko dee sa commencé dégg de. Hmm. waaw yaakaar naa Modou Lo de yàlla barkeel na sama kàddu kenn fu ne dégg na ko. waa des arènes bi de moo ko téye. Balla Gaye. Hmm. Baye maa ko yeb sama oto jëlee ko piscine olympique ñu invité wu ñu boo xam ne euh, Gaston Mbengue moo ko organisé woon ci piscine olympique. dëgg la. maa di ko bi ne ko lees gis naa sa doom boo xam ne boo ko topp loo ñàkkoon ci làmb ko lekkaat. mu hmm. ne ma Omar suma ko dégg lii la ma tontu keroog ma ne ko doom bi doom bi kenn du ko ju sànni waaye kii. soo ko téyeloo ñàkkoon ci làmb di nga ko lekkaat. Mhm. yaakaar naa feeñ na. dëgg la am na ci ñu bari ñoo xam ne ñii. Mhm. Euh, noonu ma koy defee nag. Mhm. noonu laa koy defee ci ñenn ñoo xam ne damay xam ne kii su liggéeyu lii dañ sonn ci làmb mais du ci am dara. Lac de Guiers 2. de moom it sama boy la boo xam ne bii maam ma ma ko yoroon. dama ko dénkoon. waaye moom it mosuma ko jàngal dara. dëgg la mosuma ko jàngal dara. lu may bon. du ñu déggante sax. Hmm. du ñu déggante sax maa moom. Hmm. parce tamit àddina ki nga am relation di waxtaan ak moom. Hmm. day fekk mu di la woo ngeen di waxtaan wala muy ñëw sa kër ngay dem këram mosul ñëw sama kër mosuma dem këram. rajo laay wax kii laay waxee kay site bi laay wax li may wax dina ko seetlu ko seetlu xam dëgg la. parce que fii ne dem naa këram wala day ñëw sama kër moom dina ne peer waxul dëgg. man xamul sama buntu kër man xamul buntu kër. temps bi ñuy bëri mbappat fa yeneen xale yi ñu ngi waaw waaw ñoom bërëgam boose ñoom ñëpp ñoo fa doon bëri si hmm. mais euh, ba Lac de Guiers moom nga laaj mosu fa bëri si hmm. Lac de Guiers nag maam ma dénk na ma ko ma teb ñu bokkootal toog ñuy def làmb jën yi mu dab ma gaari taxaw ne ma kii maa la ko dénk hmm. waaye nag mosul am combat ñëw ma mosul am combat boole ma ci mosul combat woo ma mosul ñëw mosul ñëw sama kër mosuma dem këram waaw yàlla rek a tax ma yox Bombardier Bombardier itam doon boo ko de moom euh, dañoo dajee 89 euh, la dama ne quatre-vingt-deux ma daal ci année yooyu la daal. Hmm. ñu dem màggalu Touba. Hmm. sama doom bii def vague nii hmm. Alaaji Mansour mi war def vague ren jii. keroog boobu mu ngi ne xale bu ndaw. ñu ne ci marché maa ngi man ak moom ak sama soxna. mu ànd ak benn waay Malaw sunu benn xarit la. Malaw booy ñang booy ñang bu mag wala ñu daje mu daal di may nuyu. Malaw nuyu ma mu ñëw nuyu ma. ma siggi xool ko rek ne ko yow xanaa mbër nga. mu ne ko ma ne ma ne waaw ma ne ku noo tudd ma ne Bombardier ma ne ko ah yow yaay Bombardier waaw ah, yow de maa ngi dégg sa tur. maalaw na ci tonne ko yow paa bi ko man maa ko xam. Hmm. parce fekk ay édition mag ñaa ba tey. Hmm. booy ñaa bu mag ba trois lañ daje baax moom. Hmm. mu ne maa fekk ay dégg li yow li ngay xale moo tax xamoo ma ne ko yow de nii laa ko waxee de. billaahi wallaahi tallaahi. yàlla ma ne ma ne ko yow de boo bokkul ci gone yi di war. làmb di nga ci lekk nu ne. nii laa ko ma ne ko booy ma ne ko yow mii soo soo bokkul ci gone yi di war. làmb di nga ci lekk lu ne. loolu yàgg na boo ko kenn xam nga fi. mu ngi sol benn xabtaanu daaru xuddoos bu jaune. Hmm. ca marché Ocass Touba. Hmm. benn màggal 89. ana yooyu la daal du ma jàpp damay bañ a juum ci at bi. Hmm. mais moom xëy na jàpp at boobu la. yaa ngi dégg la ci at yooyu la. addinay dox addinay dox ba ñuy dox combat ak euh, kii euh, euh, Tyson. Tyson. ma def sorti Sonatel xam nga Sonatel. Hmm. maa ngi nuy waa Sonatel yëpp sama mbokk yi ma fa nekk nekkaloon yëpp. Hmm. di leen ñaanal jàmm. Hmm. dañu daal six mois yu nekk dañuy dem sorti hôtel yi ne foofu Saly. def ay palmis ay dëkk yooyu. xam moo wax sax ndax plus hôtel hôtel ñu demee nag fa la ñuy def vendredi samedi dimanche. soir ñibbisi. yàlla def ma ànd ma ñëw dugg ci hôtel bi dégg li ma la euh, ànd ak sama soxna ak sama doom bii ma la. alatar ak soxna si ñëw dafa def si ak waa Sonatel yi. muy génn si entraîné ba pare di génn ci saal bi. palmis di génn. Hmm. dajeeg man mu ànd ak Bombardier numéro 2. Hmm. ma ne ko ñu daal ba taxaw ne père na def moom Bombardier numéro 2 ma ne ko ah ça va ah da ne ko sa combat ak fu mu toll mu ne ma ñu ngi koy dox mais taxawagul bu njëkk ba laa ne ma ñu koy dox mais taxawagul. Hmm. ne ko naa la wax leen de. xaw ma kuy daal de waaye de naa la wax leen de Tyson de mooy borom làmb ji fi mu toll. waaye soo ko daan dana tur bu rëy nag. waaw. soo góorgóorloo. boo ko daanee di nga ci am tur bu rëy rëy maa la wax bi parce que nii mooy borom làmb bi. waaye su ma doon yow. billaahi wallaahi tallaahi ngiñ laay wax ci borom bi tawka ma ne ko su ma doon yow. ki may gën a bàyyi xel mooy Yékini. Mm-hmm. boo boo bëri sax bu bëri ak Tyson ah, ko bu doon maa yow. ma ne su doon man nii laa maa ngi taw boo ko dee numéro ngi taw. ci buntu bi. ma ne man booy su ma doon yow. Mm-hmm. ki may gën a bàyyi xel sama sama carrière mooy Yékini Mm-hmm. anamu. waaw ah, yëg ne ñaata ñu bëri ñetti yoon ak ca da mu ko waaw ca bu Tyson bëree bu njëkk ba ba ñu bëri fee stade bu yóbbu bu njëkk daan Tyson yoon mm-hmm. dama keroog xaw ma kuy daan de combat bi mm-hmm. waaye yaa boo ko daanee di nga am tur bu rëy parce que booba Tyson mooy toj làmb ji nekk super gën lu mel xam nga Tyson def ci làmb trottoir gis nga ko waaye dama ne ko combat bi nga war a gën a bàyyi xel ci àddina man su doon man laa wax Kolda ak Maodo ku nekk ay contre Yékini bi na nga ko bàyyi xel. Hmm. Père Birahim tey nga dëkk parcelle. Hmm. am ñoo xamante ni euh, jàpp nañ ni fi mu toll nii ci xale yi jóg ci làmb ca lañ bokk. Hmm. Euh, sànq ci sa biir lim dafa am ñoo xamante ni damaa bëggoon ku ci nekk rek nga nga wax ma fan nga gis carrière ci làmb ak nan ba taxawaay la war a am ci làmb ku ci mel ni euh, tudd nga Franc léegi. ci ci fi euh, fi mu toll ci làmb. ku ci mel ni Garga ku ci mel ni Garga Mbossé ku ci mel ni Ibou Ndiaye Obali. waaw euh, ku ci mel ni Aada booy Bawal. Aada booy Bawal mais benn mbër la bu nekk dóor dóoraat mais moom mu ngi yëngu ci làmb simple yi. mais xam naa ni ci xale yi doog a départ ci la bokk. fi mu toll nii. Mm-hmm. ñooñu noonu ci làmb euh, ku ci mel ni xale bee tamit euh, ndongoloo mm-hmm. ca la ah. bokk mm-hmm. moom dafa nekkoon ci ay defet nekk ci ay tolof tolof mm-hmm. mais teewul ci làmbam ba tey ñu ngi doon gis champion ci moom ñoom ñooñu noonu ñëpp ku ci nekk lan nga gis ci moom waaw euh, Garga Mbossé dama ko fàttali kooku Garga Mbossé ci mm. champion yi la bokk mm. Garga Mbossé mm. man du ma nëbb du ma sama mbër la bii waaw ah, booy la boo xam ne booy bu neex la parce que mbappat bi da cee jaar dafa toj mbappat. Hmm. door dugg loolu tax mën a woo. c'est dafa yeewagul yaram bi nag. Hmm. maanaam li moom da koo gé waroon a génne da koo génneegul. lan moo tax génnewu ko. ah xam loolu moo xam moo xam ci biiram la tax mu ne ci génneem. Hmm. la mu war génne ci moom moo ko war a génne moo ko xamal boppam. maanaam mooy maanaam wextaan waat initiative baat. jël initiative war ni kii maala man du ma taxaw ak yow naa nga loolu moo des ci bëreem. gis nga kenn ba muy bëree njaga ndoy. kii ndoy. Moussa Ndoye Moussa Ndoye. man combat bett moom daa sama doom yi dañ ma weddi. ma leen kii Moussa Ndoye bu ko daanee bett ma de maa la wax lii. parce que booba mbër mënoo la nga mën li mu mën xam li mu xam ba pare su buy ko doon ko ba pare encore bëri bëri di dem di dem noonu. di temps di xaar rek di temps di xaar. moo tax ma ne yeewagul yaram bi su yeewee yaram bi kenn mënu ko ci làmb hmm. ay morom ñi ngi fi yëpp kenn ko ci mën a amoon. ñu ci bari dañ naan ah. non dafa ragal combat am dafa a ñàkk fit ak mënul. waaw loolu xam nga dafa toog ci wax. Hmm. dafa toog naan diw hmm. am ne mag na loo xam ne soo ko waxee ko ne bu la tontoo loo naqar yaa ko tooñ. dëgg la damaa jur ñu ko mag jur ñu maasee moom. su ma toogal wax ko loo xam ne waruma ko wax. su ko déggee mën na ma caa xeeb man na ma caa cër ba ma waxoon mën na koo teggi parce que maa ko wax lu ma ko war mhm, mhm. moo tax man daal li ma mën a wax mooy bëri bi nga jaar na ci ma koy toj na ma ko ni waaye na yee yaram bi su yee yaram bi làmb ji da cee bokk dëgg la muy benn mhm. kanante am na keneen koo ma tuddal tamit Ibu Njaay Ibu Njaay lu boobu gis naa ko ci mbapat yi mais moom it bu defaroo ci mbër yi la bokk mais foog mu yokk xam-xam ni ma la wax moom. dégg nga am ab wax daal ko. Hmm. Franc moom it mu góorgóorlu ci mbër yi la bokk. Hmm. beneen booy bi nga amoon xaw ma ko. waaw mais am na ci beneen xale boo xamante ni. bi muy jug ci làmb ñu bari yaakaaroon na ko muy ndongolo. waaw ndongolo. ju ndongolo daanaan la. jóge na ci écrit sax ba ñëw. ci man la nekk waaw. Hmm. mais dafa ne woon bëri. moo tax may la xam nga dama la wax ci suñu biir wax sànq may la. ay bari ñu ngi dañu ubbi écrit écrit xew rek kenn ku ne daal di xew kenn naa ubbi écrit du ay. du ñuy entraîneur parce que yow mosoo takk ngebb mhm. mosoo mbappat mosoo koo foye daanaka seetaanoo ko sax mbappat ba tax ñuy mbappat mhm. nga xëy rek dajale say mbooloo ubbi écrit da ngay jàngale bëri foo koy jàngale kuy jàngale daal day fekk nga jàng ko mhm. day fekk nga am xam-xam ko caméra mi bii te suma joxoon ñu ne ma kaay filmer lan lay filmer te mosuma téye caméra yooyu ay naxaate la xale yi ñoo war a wut ku mën a xam-xam jàngale leen ndongoloo départ bu baax la amoon dégg nga li ma la waaye dafa dem ba ci kaw stag taxaw xam nga tax mu taxaw parce que la ko waroon yokk da koo dindi parce que mbër li koy yokk mooy sëñ bi daan nga tey waaye erreur nga daane. Mhm. nga bàyyi ba làmb ji tas nga dem sant kaay daal taxaw ne daan nga dellu action bi. Mhm. nga defee nii waa ji bu defoon nii doo am lii. Mhm. da ngaa daan ndax sens. waaye daanoo ndax man. bu ëllëgee bu tolloo foofu bàyyi ci xel. waaye di daan di dem di daan dem parce fa nga demee xam nga nga ne xam nga yéeg première étage daanu. ak bi nga demee daanoo troisième ban moo gën a garaaw. troisième waaw. waaw ñu ci ban nag premier étage la ñuy daane. Hmm. ñu dee duñ la rectifier di leen rectifier duñ la rectifier ñu bàyyi ba top niveau ba àgg troisième wala quatrième cinquième. Hmm. door a commencé sëpp jali hmm. ak diw sàcc la fekk dara loolu nga waroon a rectifier ci sa ndaw ko rectifier la indi loolu. waaw. parce que bi lay jàngal. bis bu la defee dicté dara nga def faute daf koy rectifier. Hmm. su ko rectifier wul boo ko jàngul boo demee tam boo ko defee da nga ja yéen jànkar yi xam ngeen li may wax. Hmm. waaw mu ngoog. mbokk yi dégg ngeen Père Birahim Ndiaye lépp loo xamante ni euh, jàngat na ko ci làmb ji. Hmm. jàngat ko ci xale yi nga xamante ni ëllëgul làmb jàpp nañ ni ci seen loxo lay nekk. wax na ci wax ju am solo. wolof nag daf ni du duuf ci nag bi. xajul ci cin euh, xam naa ni dañ koy tënk ba ëllëg ba beneen yoon parce que xam naa ni liñ bëgg a waxtaanee ci làmb lépp Père Birahim macha allah mooy làmb te buñ ko doon waxtaanee fii ba suba du fi jóg euh, ñu bëggoon ko tàggu rek euh, jaajëfal ko ci disponibilité bi ci ànd bi liggéey bi per ñu lay ñaanal bu baax yàlla suñu borom defal la gudd fan ak wér kàttanal la ba lépp loo xamante ni bëgg nga ko rek suñu borom defal la ci lu kaw sa njort ñu lay jaajëfal. waaw jërëjëf si yow maa yow. question yi ni nga ko posé leer na. ah ñun tamit dañuy ñaan ci yàlla lépp lu ñu fi rek muy njariñu. wasaare làmb di njariñu ñi koy déglu ñi koy seetaan ak ñi ñi safoo ah, site bi yëpp di ci abonné. loolu tamit parce que am na ñoo xam ne xëy na bëgg nañu Père Birahim suñu déggee ne Père Birahim a ngi wax fii ñu safoo samay wax am na ñoo xam ne samay wax sax bëgguñu ko déglu parce que àddina it moo demee hmm. <laughs> hmm. a bëri succès buñ duggee ci làmb du ñëpp koy tàccu déedéet am na yoon hmm. Modou Lo ku bëri succès la xam nga ne kii tamit Balla Gaye noonu kon yàlla nañu yàlla saxal ci ñuy wax dëgg parce que wax dëgg moo ñu yóbbu fa ñu bëgg a jëm mais boo dëgguwul hmm. yaa ngi lor sa bopp di lor sa njaboot hmm. parce que na ngay lor sa njaboot mooy ah yow kii di papaam da ngay sa doom sax yoonam ñu ne ko papaam kii pa papa bu foo la loolu hmm. dëgg moom yàlla nañu yàlla saxal diine yàlla nañu yàlla jéggal suñu njuum te baal ñu te may jàmm suñu Sénégal. Hmm. ci Sénégal ànd monde bi sax laa wax. Hmm. jàngoro yi fi nekk yàlla na yàlla teggil ñu ko ba ñu di ko fàtte di ko. yàlla ñu bokk ci ñu ko doon nettali at sàngam de amoon na fa. Hmm. waaw yàlla nañu ko yàlla defal te itam suite bi daal yàlla na àgg fu ngeen xam ne fii bu raw seen jot. donc ki ko créé tamit di kilifa gi. am ci ndam lu rëy. amiin amiin ndam li mooy seen i tànk yéen xale yi. ngeen juboo nekk benn di xàccendoo di dóorandoo hmm. fa ngeen bëgg a àgg di ngeen fa àgg incha allah ñun nag mag ñu leen di jàppale rek la ñu hmm. ndax ñun suñu temps daanaka jeex nañ hmm. lamb dañuy ñëw di ci jàpp nii rek. Hmm. mu doon suñu bëgg ñu fooyee ko suñu ndaw yëpp ba tollu fii. Hmm. Eh, bu ngay ñëwee laaj yi foog ñu wax ci suñu xalaat. Hmm. loolu rek la parce que ñun duñu wax ci karaté duñu wax ci boxe. duñu wax ci judo. li nga xam ne tooyal nañu ngeen ba tàyyi. te loolu la ñuy laaj. loolu ngeen ñu laaj ci la ñuy tontu. jërëjëf maa ngi nuyu suñu caméraman bi yëpp. di nuyu sama doomi jigéen yeeg ñëpp. di nuyu daal. Hmm. di kontaan nag di def ñaan ci yàlla yàlla bu mu suy mujj toog jërëjëf. a amiin amiin jërëjëf Père Birahim Ndiame laa ci àndaloon euh, di ko jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yi di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmba ak Père Birahim Ndiaye ak Baye Djili jërë ngeen jëf ba ëllëg incha allah.